mercredi 22 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens, les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 contacts suivis par nos services et de 4 cas issus de la transmission communautaire identifiée à Touba. 11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés par ailleurs stable. À ce jour, 442 ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 253 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 182 sous traitement. Comme annoncé hier, mardi 21 avril 2020, le Sénégal a enregistré son sixième cas de décès lié au Covid-19. le ministère de la Santé et de l'Action les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. ma jàngal leen ci wolof communiqué numéro 52 bu ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a lim ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari test yi ñu def fanweer ñoo ci positif maanaam ñaar fukk ak juróom benn yi ay contact lañu ñeenti cas yi di ay cas communautaire yu ñu gisee fële ci Touba fukk ak benn ci malade yi ñu ospitalise woon wër nañu bésu tey yeneen malade yi des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan te benn cas grave amul ci suñu structure de santé yi ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk bi Sénégal wàññi na ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak ñaari wër nañu juróom benn yàlla nangu na seeni bakken kenn ki ñu évacué ko mu des téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci suñu structure hospitalière yi démb mardi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk senegal wàññi na juróom benneeli deseem ci mbas mi ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di ñaax population bi pour ñu sàmmoonte ak digle yi ñu joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant